Euh, Serigne Saer Dieng euh, maa ngi lay nuyu. sëñ Pape maa ngi euh, may fàttali na yow kilifa nga ci kuréel gii di Safinatul amaan ndax man nga fàttali mbokk yi ban cër nga ci am. waaw man de xam nga daanaka maa nekkoon maa nekkoon dama nekk ex coordinateur bu Safinatul Aman. Mhm. te sànq bi ma wax nii maa nekk chargé de mission bu Safinatul Aman. chargé de maanaam bi ma jógee bi ma jógee ci coordination coordination bi chargé de mission lañ ma yóbbu lañ ma yóbbu. mooy liggéey lan lan moo doon sa liggéey kon. maanaam lépp lu lu lu ñu doxal lu ñu dox suñu raaman. Mm-hmm. ak ku euh, ñu yónni ak lu ñu def. Mm-hmm. man la fu ñu yebal. maanaam lépp loo xam ne kon doon na yitt yoo xam ni Safinatoul Amane war na koo dox. yow yaay ki nga xam ne yow lañ dénkoon diggante kilifa yeeg takk der yeeg délégué de quartier ci village yeeg ñëpp kay gëpp rek. Mm-hmm. Euh, tey lan nga ñu bëgg indil ci kuréel gii di Safinatoul Amane. li am solo mooy Pape man damaa ñëw pour leeral askan yi nga xam ne dama def ñun tuwaat te xam leen baax doon liggéey ñoom. di leen déglu baax di leen baalu àq li ma jubloo daal Pape mooy damaa ñëw fu teg sama doom ak tànk bis ni ki tey. lu waral lu ni mel. li ko waral mooy euh, liggéey bi ñun dañ ko àndoon ak sëñ bi sëñ moo sëñ Modou Ablaye boole na sëñ ab liggéey te liggéey bi la ci am njariñ sëñ lañ ci lañ mooy coono yi. njariñ mooy lan. njariñ ak coono mooy ñun dañu ñu war a mooy daanaka sëñ Modou moo ko moo ko moo ko digal boppam oto yii ñu jox benn bi. yóbbu yóbbu xale si mot ñuy jàngi liggéey ak gën delloo si. oto oto yi sax dina ta amaan. mooy oto oto sëñ Modou man sëñ Modou. sëñ Modou Lo Ngabou. beneen bi. waaw. li mu ay service muy kàr kàr bi war waaye kanam dafa am li ci ëpp muy dox service yi waa la. Hmm. man bi dinaa ko yor léeg-léeg mais su si si soxlaa ma foo ma nekk maam bu fekkee tur bi oto bi da da fay ba. Hmm. waaw léegi nag ginnaaw xam ne ñun dañoo àndoon doon liggéey Sëriñ Tuubaa te dem nañ ba yi fi maanaam daanaka buñ ko xoolee ba ci biir léegi man na man man dama la wax ne maam santu tudd santu tudd loolu sant man Saer Dieng teg naa sama doomu tànk bis ni ki tey. loolu luy doog a tàmbali la wala yàgg na ci. maanaam luñ yàgg a coow la maanaam kii mu yàgg na ci coow ëpp na at ñu coow ma ak moom. Mhm. ndax man mii bi ñu sancee bureau yooyu noonu ba léegi. Pape liggéeyu ma xam tax liggéeyu ma. lu tax. maanaam jëm que li li li ñu def mooy sëñ bi bureau yooyu si mu tax a waxaloon. Mhm. daa ubbi daa ubbi ji maam tëj kaw gi. Mhm. bëgg nag ñun ñëpp ñu tàmpale si may man man ma ne ko man lànk naa. Mhm. loolu moo tax bu ñu ko bëggee ba léegi nii maam maanaam euh, xëyu mu xëyu mu foofu sama suñu biir lay xëy. Ah, ndax ginnaaw dañoo tabax ay ay dañoo tabax si tool noonu. ñu tëj benn parti benn benn parti ñu bàyyi ko ñun mbooloo ñu ne lii suuf ma ne li man loolu man damaa lànk man man ëpp naa loolu. Mhm. yaa ngi dégg. maa ngi dégg bu te it ba ñu tabaxal ñu liggéey moo tax mu ko. ginnaaw nag xam ne si maam léegi daanaka maanaam sëñ bi ñëw ci xawutum xaalis dong la. i ak ki dóor ki tapale man sa démission naa bis ni ki tey daaw bari nag man li may wax nii maa ngi ciy wax ci li ñu ma ci waxal yëpp. ba ci kilifa yii ma yilif dëkk daañu wax ne wax naa ci ñoom. li li liggéey bi lan moo ko gàllankoor dëgg-dëgg da da war a fayeeku fayeeku leen. wala da non fayee mu fa li fa am ñun duñu fay man kenn musuma fay. li am mooy. Mhm. xale yi fay liggéey moom ku ci wàcc dan dana am lu ñu war a yow loolu moom na fa. Mhm. waaye li am daal mooy euh, lañ see kóorti lañ see kóorti ci xaaj sax kenn mënu laa kenn mënu laa fu xaaj boobu jaar. Mm-hmm. parce que euh, xaalis bu fa xëy génn am na ku ñëw jël ci ko bu ko dugalee banque bi ñun pare nañ xaalis bi kan moo koy kan moo koy gérer yéen ñi ci teeral. wala benn benn compte ubbi woo xam maanaam ku ñu wax Aliou Ndiaye mooy jël mooy jël ñu dugal ci. Mm-hmm. ñun bu ñu ko joxee far nag ma xamuñu ci dara. kon euh, mbir mu ni mel ndax laataa ngay jël dogal bu ni mel di démissionné waxtaan nga ci ak sëñ Modou. maanaam yàgg naa ci wax dama la maam daaw ba ren ñu ngi wax xam nga man damaa waxoon suñu mbir ne ko. Mhm. man munu may àtti mbooloo fay dugg munu may àtti mbooloo saa su ma xëyee ba pare di dugg seeti mbaam mi ànd di ànd ñu dugg seeti mbaam mi munu ma ko. ginnaaw sëñ baa nga ni jox ay moyen man ñaar laa bëgg oto laa bëgg ak judo ndax man kenn fay ginnaaw kenn fayu dara léegi nag nga war a xëy àtte ñeent fukki nit ci biir dëkk bi yu Tuubaa boo paree ànd ñu ànd dugg seen mbaam mhm. wax naa ci clinique yi ma wax naa ci wax na ci yéen kilifa yoo xam ne ma ñoo ngi daara mi wax naa ci ak moom moom ay yoon yoon yoon biñ ci mujj wax mooy biñ biñ biñ ne suul gannaaw suul def wax naa ci ak moom hmm. léegi nag bu fekkente ne ñun danoo danoo danoo comme ne dañ maa tànn jox ma suñu moodu hmm. nga bokk ci liggéey liggéey boo xam ne ko liggéey hmm. léegi yow oto yooyu nga xam ne maanaam par exemple sëñ bee ko jënd ndax tulaaj kaam jox na oto léeg-léeg mu ne ci àll ba mu ne ci guddi sëñ oto yi oto yi fi nekk yii sëñ Mountakha ba di imaam bii tubaab kanam ma ko jox beneen bi ci desaat maanaam maam Xadim Mbàkke moo nu ko jox mhm. te bi ñu maam Xadim Mbàkke jox mhm. dem dem école lay liggéey yóbbu xale yi jàng lay liggéey mhm. bu leen yóbboo bu ñu bu bëccëgee ba dem jëli leen dañ def muy kar kar bu ñu fubal bi ñu soxla waa kër gi te mm-hmm. it yaa xanaa xam loo xam naa day war ci ay ay temps ay en tant que actif yoo xam ne maam ay actif yoo xam dañeen dañeen wax ne dama liggéey xanaa même bu ñu bu ñu mënta jox boo ñu mënta jox it dolli mm-hmm. li ñuy jox doon ko bàyyee mm-hmm. léegi oto yi ñuy dawal xam ne mooy oto rim bi oto yi ñuy dawal di jël nii amu ci kayit pap te loolu jaaduwut oto yi ñu nekk seer ba benn wut ci kayit léegi kon ñi ñiy dégg euh, duñu wax ne Saer Dieng xëy na kon euh, yëfi boppam moom moo tax euh, mu mu démissionné waaye du euh, njariñal kuréel gi ndax bu ñu déggee bureau nga fi laaj ak oto ndax ñiy dégg duñu wax loolu man këriwuma dara xamoo tax mm-hmm. bu fekkee ma damay liggéey yaati mbooloo maanaam su ma su ma wàccee ànd nañ bu seet mbaam mi ndax loolu na kaaraange mm-hmm. léegi war nañu a suñ mun taxaw a tabax seen tool ñu di ko ci kaw di waay di maam bi ñu dajale ci suuf mm-hmm. tey kii prix bi ñuy wala leen suwaat man war na mën a ne loolu laa loolu la mënut a loolu laa mënut a loolu laa mënut a comprendre. Mhm. man li ma gëm. Mhm. da nga may liggéeyloo da nga may mettre en l'aise. Mhm. mooy ginnaaw soo mu saa boo ma jóg loo ma jóg mu jóg ba te quatre heures deux heures trois heures ci matin ci yam. soo ma jóg loo ma jóg kon woote compliqué xam nga ndax ndigal ma ko yóbbu. bii xewee nii xam nga bu fekkee dem ci daa ko en tant mel ne xew ma am gaañ ma. sëñ Modou déchargé wu ci maanaam maam de déchargé wu. ah dañ dañ la fa dóoroon. dañ maa dóor maanaam moom laa dama ne la damaa mm. dem fii laa ko dóor maanaam xam nga dafa am xew faafu. waaw. ma woo commissaire ndax gis ne commissaire mu dëgg naa moom du ñu ko mm-hmm. ma woo commissaire moo ñëwal boppam moom moom moom bi si dara ànd ak élément. Mm-hmm. ci bi ma ñàkk fa léegi bi mu xew fi mu mën nañ ko topp. Mm-hmm. bi ma demee bi ma am médical bi bi ma ko waxee bi bi ma ko waxee sëñ da def na ma léegi loola moom mënoon naa ñàkk. Mm-hmm. bi loolu amee léegi ma topp ko ba bañ jàpp xale bañ jàpp xale yi. te mm-hmm. Ousmane Mbacke woote mu ne mu wax ko ne ko sëdd ñu ko loolu. te mm-hmm. Ousmane Mbacke xam nga mooy mooy sëñ nga xale yi. waaw mu wax ko ne ko ñu ko loolu. ba nga xam ne sëñ Modou Blay mi mi sama sëriñ man moo mu jël moo mu jël euh, responsabilité am. ba sax xale bi ñu tee maanaam bi sëñ Ousmane Mbacke ñaan sëñ Modou Blay la mujj dem pour mën ko dimbale pour ñu mën a bàyyi xale yi waroon dee fete. loolu jaar na. Hmm. lii laa mënul dundati ci kaw li may li may def ci kaw parce que nag maanaam euh, ci dëkk bi laa dëkk. Hmm. te mbokkum waa dëkk bi euh, dogal waaw. maanaam dogal bi mu jël nii. Hmm. waxtaan ak sama kilifa. mooy fi ma ko yóbboon. wax naa ke moom jox ma digal dama dama dama topp sa liggéey yi. lii tax may def lii xam nga dama faa doon yëngatu ñëpp xam ma. ah. maanaam kuréel bu may bokk amul nag. maa ngi soobu liggéey laa dellu. Mm-hmm. wóobuma kenn ne ko ñëw tamit nag. Mm-hmm. tey tey tey dogal bii nii nii ndax doo doo doo jox dëgg ci genn wàll gi ñi nga xam ne xëy na fan yee ci ginnaaw ñu ngi la doon xarab sa taxawaay ñu ne yow yaa tax ñu génn. waaw xam nga man li ma li ma xam. Mm-hmm. ku ne xam nga sa bopp. man euh, fi ma doon waxee nii. waxuma la di di moom tax génn. xam nga li ba. sëñ Modou moo tax bala ñu lay wax loolu maanaam li xëy na li ma li ma def nii xëy na ñoom ñu ko mënul. Mm-hmm. day xëy na am am ku ñëw. Mm-hmm. sëñ Modou man moo tax ma baax. Mm-hmm. keneen taxu maa baax. yoon yu mu jaar ak ñun te dem bi set laa si ñëw dem naa ba arrangé tuuma. léegi nag maa gis moom dogal démission na ci loolu waaye du keneen ku ku sëñ Modou taxu maa baax. ndax nag damaa am damaa damaa dugg ci mbir. am te jafe-jafe mu bàyyi ma ci biir maam pour fu ma ci biir. bu sama bu sama kii bu jógutoon maanaam mën naa demee neneen. comme. Mhm. tey tey liy xew lii xew nii jàppoo ne eh, mën nañ cee wut saafara ba nga wéyalaat liggéey bi. maanaam dama naa wax ne man tekk naa sama ndombay tànk ba man bokkuma bokkuma ak ñi maam ñi ñi ñi ñi wàcc di lekk di di ko di ko saxaat. parce que mhm. tey wutum xaalis fa nekk du leen wut leen ni wutum xaalis fa mhm. la ma fa gis nii. wutum xaalis dong nga fa nekk. yow yow mi nga xam ne yàgg nga cee nekk yàgg nekk si njiit yi liggéey bi ndax jàpp nga ne dëgg-dëgg euh, li tax mu jóg euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si na damaan noonu la ñuy liggéey réellement ngir. liggéey bi nekkul foofu parce que man ñi bari ñi ma doon xarab euh, man damaa yor man xam nga dossier yi man day mm-hmm. lépp lu koy indi fitna di ñuy teg askan wi ak di leen di fitnaal ak di leen bu nu ko taal. Mm-hmm. Pape nañ ko xoolaat parce que man ya loolu lu may yàgg di wax la yàgg yàgg ci taxaw nag maam du lu bees. yan xeetu bundu nga ca fekkee yow yoo xam ne yow. métti na la xam nga bundu xataal nit ki mooy par exemple maanaam nga nga nga teg benn place nekk il faut say nangam. ah saa situation moo war a jiitu soo nit ki maam naxante moom njëkk. ba mu tënk nga nga ko tegi daan. waaye fi mu toll nii ñun bu ñu bu ñu def bilan sax bu ñu def bilan doo doo doo doo doo te damaa yà damaa yàgg ne leen maanaam xaalis nañ ko teg fële te xam ne li mu tax jurul xaalis. xaalis boobu fu muy dugg. ah xam nga ko man de li ma xam daal mooy man su ma wàccee su ma mosaan wàcc. Mm-hmm. ba mu jox Aliou Ndiaye ba ba ba ba mu weesu ci banque ba xamutuma ci dara. Mm-hmm. ci chiffre d'affaires amoo ci benn idée ci nu muy toll par jour li ngeen di dajale ni muy toll par jour. chiffre d'affaires yi moom euh, mën naa man naa bari. ay ñaata par jour. parce que bu dee bu dee bu dee man bilan yi ma doon jot. Mhm. daanaam am trente mille. Mhm. léegi moom cinquante léegi moom cent léegi moom cent nangam. par jour. waaw loolu mu daana léegi moom cent cinquante yu topp. bis bu nekk te du ngeen xam fu muy dugg. ah ma def ko amul ay ay ay jumtuwaay yu ñu leen di wutal yéen di jàpp seen liggéey xëy na. jumtuwaay euh, mooy lan. waaw peut-être matériel bi ngeen di liggéey moo xam xëy na oto lay doon carburant lay doon wala lu ngeen. di lekk carburant moom carburant moom euh, ci liggéey bi lañ koy solee. Mhm. carburant ci lañ koy solee maanaam li ci ñu def bu ñu wàccee. Mhm. ci la carburant di génn. liggéey ñi ci liggéey wàccee. Mhm. moom ci lay génn. léegi nag. dafa jot ñu càmbara ñu su fi noonu ci moom war a xoolaat maam fekk ci yoon parce que raay bi bi mu nekk baaxul. Mhm. nekk nii. Mhm. baaxul parce que nag li euh, ñi nañ ko waxte dee ñu ngi ci problème. Mhm. parce que sax su nga tax ba am trente personnes téye léegi dafa dafa dafa. te te effectif bi nu mu toll. effectif bu. Euh, saf na amaan bi nga xam ne yow bokk nga si njiit yi woon. effectif bi moom. Euh, neexul xam parce que brigade laa mën a xam. Ah, ah, brigade yi ñaata brigade la. waaw brigade yi moom li ma fi xam mooy trois brigade euh, yu yu wér. bi bi gën a bëri ay ñaata nit a ca war a nekk. Euh, maanaam euh, brigade yi moom jaaxal naa du ëpp ay fukk ak nangam. mais hmm. dama dama la wax la. Hmm. kay dugg ci marché bi jàpp fanweeri jigéen laa wax. Hmm. dafa yomb. kenn ku nekk ñëw na kenn ku waxee six mille. maanaam am na yenn yu gën a compliqué yooyu. tey suñu mission maam dafa maanaam loolu dafa loolu maam loolu suñu mission suñu mission mooy danoo danoo jógoon pour jaari gis sëñ njëkk mooy ñun ñii gis sëñ Touba daa am ñu war a comporter am ñu war a mel waaye nag bu fekkee dana léegi daanaka boo xoolee sax da ngay demee yow sax doo maam bu ñu la nawloo boo si daanee dama ci bokk da ngay am kersa ndax bu ñu nawloo parce que jëf jéegi wax ci defi defi defin wi man comprendre ma loolu man nag te xawoon naa moom ba sama moom moom am naan ma ko nu ma toogee woon ndax ñu ma teewoon mooy mhm. man toujours amoon li muy boole ñu mooy liggéey bu ma xasee wàcc moom bu xasee liggéey jeexee moom pare moom liggéey rek moo ni boole yan critère ngeen doon jëlee ñu si nekk critères yi de man euh, man mosuma jël benn nit andi ko sëfin amal ko jël mhm. waaye nag gis naa gars di moom ñu jël gis naa loolu nu ñu leen di tànne ki ki ñu war a bokk safin alamaan nu ñu koy tànne tànn bi de amul solo amul benn critère bu ñu teg koo xam ne dañ naa la maanaam yow dañuy ñëw ñu leen léegi léegi amu ci de parce que buñ ko buñ ko bu fekkoon noonu lañ koy tànnee. Hmm. maam li maam li ne hmm. ci que dafay am na wax ci suuf da tax li laaj loolu dafa bëri ñuy laaj ci suuf ne léeg gis ay éléments safaanul amaan yoo xam ne euh, xamuñu leen ci ak jub ba pare ñu gisee ñuy jéem a jub jubbanti ñenn ñi. loolu mooy ci di jaax moo tax may laaj tam ñi loolu li li tax moom ne lampagaay la am na ancien yoo xam ne maam 97 2017 ba léegi 2000 lan Euh, ñu ngi soon depuis maanaam 97 ba te te légal lu ñu. 97 parce que bu fekkee bu mi ngi soon bu mi la xamee woon daaw ba ren moom la xamee Pape am na lu xew. Mm-hmm. as góor. Mm-hmm. bu ku ñëw si ginnaaw daa am lu ñu waxtaan loolu ñuy wax ne la maam am na ñu ci bari ñu ñoo ñu ñu demee noonu ñu la wax noonu am pagaay. Mm-hmm. am ñoo xam ne ko ñu di ko de. tey tey tey lan nga jàpp ne mooy solution ngir Safinatul Amaan mission bi ñu ko doon xaare mu mën koo matal. solution bi daal li koy andi mooy nañ def état généraux ndax Safinatul Amaan ñu ñi ci bokk ñun dañ dafa ay maanaam ay membres la mais Safinatul Amaan ñi ñi nga xam ñoom ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo fa ne. Mm-hmm. mooy seet Serigne Touba yi. Mm-hmm. nañ ko jëlaat en main te waxtaane ko. Mm-hmm. maanaam ba teg ko ci raay bi seet nañ cay doxee. maam kenn ku nekk liñ la ci dénku ci cër ñu delloo la ko nga téye ko su fekkee mënoo ko téye nga seet protéger boobu nga tegal nga teg ko mu téyel la ko buñ ko defoon liñ bëgg dana am ni ñu ko bëggee dana am te benn jafe-jafe tam daañu mën a waxtaan bi ñoom naxtaan dañ naxtaan nit ñi waxtaan wax naa ñoom ba delloo leen ci aw yoon te dara du ñaaw fitna du am maanaam xeeti foqati xaalis da booba dara du ci amat jërëjëf xanaa balaa ñoo tàggoo rek li may laaj mooy sa démission bi ndax yow rek euh, yaa dem wala am na ñenn ñoo yóbbaale. maa kenn man maa dem. Mhm. parce man bu ma ñëwee ba léegi man ñi ma nekkee ñi may wax laa waxee man kenn laa àndul dem. Mhm. li ma def nii. Mhm. mel ni man la engagé sama responsabilité la. maanaam bu ma amee ku ma ciy wax mooy seen mooy sama sama kilifa muy sama Mhm. tey waaye waxuma jekk dem ma ci dem ma ci képp dem ma ko ma yónneewu ma. Mhm. man maa jël sama responsabilité. Mhm. démissionné boycott mi def naa ko ba yàgg mooy depuis ñu unigressé boobu laa boycottoon. boobu moom sama liggéey dama ko taxawaloon. ndax li tax ma taxawal ko. ay magi jëmm nga tabax état ko noonu maanaam dina dajal dina dajal ci ñaari parcours. maanaam man ña ña see ña see ña see ne ma du ci bokk. yeneen puq sam lu cee nekk. dañ koo tëj dara ni wupp ñoo ne leen ci ñaari yi rek ngeen sañ a toog. voilà muy ñaari bureau ci suuf ak suñu euh, suñ bu ñu jàppee bu ñu jàppee fi ñu leen di bàyyi. léegi nag ma ne ma ne loolu man du ma ca ne. su may waxee yow nii allo. waaw. maa jël sama responsable teg sama ndombo tànk ci lépp luñ ma dénkoon. Mhm. te it pare naa te du ma delluwaat. sax man ba may ba may ba may dem. maanaam mm-hmm. bëgguma woon dem dañ maa dañ maa yebaloon. kañ kañ nga ci duggoon ak noo ci duggee woon. 2017 la ma sëñ Modou sama sëñ Modou Laye moom si Moussa Bioutaan mooy Iliman Dar Minam. 2017. waaw ne ma liggéeyu sëñ liggéeyu sëñ euh, euh, Muntaxa boobu liggéeyu sëñ boobu noonu. Mm-hmm. sëñ Muntaxa da ko yittee lool ma war caa ne mënu ma caa ne ma bëgg nga dem nel ma ko. Mm-hmm. boobaa léegi ñaari fan yi ma yu ma liggéey dinaa dinaa gisee ak moom bu fi may taw di wax yu nii. dara ko li xew. Mhm. léegi nag ginnaaw man Sëñ Tuubaa laa fa doon seet te gisuma ko fa te ma Sëñ laay wër deel war naa daaru minam xëy naa ko fa gis mhm. ndax moom Sëñ moom suñ sëñ maam Sëñ Tuubaa nga fa mhm. tey ban message ngay tàggoo mbokk yi rek xanaa di jéggulu ñëpp ñu doon seqal liggéey bi di jéggulu mbokk taal bi nga xam ne xamoon nañ ma ci liggéey bi mu seqoon ko ak ñoom doon ci jëflanteeg ñoom ñoom ñëpp maa ngi leen jégglu leen wax ne su ma fekkoon ne suñ tubaab monsieur ma nga fa moo fa jóg dem naa nag di ci waxtaan booba léegi lu pré at maa ngi négocier pour euh, ñu delloo si ci raay bi sottiwut léegi nag ginnaaw suñ tubaab gis ma ko fa man maa jóge naa fa léegi delluwaat naa ci sama sëriñ bi ma fa yebaloon xool di nga xaar yeneen yoon may joxoñ ak sama liggéey bopp bi nga xam ne saa sama bopp yottam njaboot ma maa ngi baal wax ñëpp saat ñëpp ñaan ñëpp jàmm bi ñaan suñu Muntaxa mi nga xam ne moo dootu juba tey yàlla na ko suñu borom yàggal mu yàgg fi loolu comme ni ko suñu moo tax waxee ak jud lu téeméer ak ko wax léegi ci ci wéri wóor yi maa bañ a weer yi te ñun ñëpp na bi liggéey suñu bii mu sumb nu bokk mu di ànd ak moom ak ku bëgg nag maa ngi baal wax ñëpp baal wax ñëpp ab jërëjëf